taxawal leen ko benn par benn ngeen am ko en direct voilà. gis ngeen voilà ñu la ñu def ndaw yi daaneel ordinateur yi lépp loo xam ne machine la lépp loo xam ne dañ liggéey papier yi lépp lañu saccagé donc daal fii nga xam ne mooy brigade bi Kër Mbaye Fall ndaw yi dañu fay dugg saccagé ko taal dugg si néeg yi ñu demaat si beneen bureau bi moo leen ko en direct encore voilà gis ngeen ñu lañu def nii la ñuy def maximum de partage ak ngeen dem aimer sama page Facebook. voilà Sada Am l'officiel gis ngeen. bi nii lañ ko def. brigade bu Kër mbay Fall nii lañ ko def donc mbir bi daa mel ni dafa am leneen lu si rax suñu xoolee ba xool situation bi Auchan la ñu attaqué ñu foog Auchan yi on attaque les brigades maintenant ñu ngi attaqué ni ni mel mooy Elton yeeg voilà donc affaire bi ñun xaw nañ sax ba ñun nga xam ne ñun ñooy ñun ëpp ëpp li nga xam ne voilà c'est comme ça violon baa ngi nii kenn comprendre tul la kenn comprendre tul violon bi nag du fa dugg nag waaw bëgg naa lu leen neex trop mais du dugg violon ba daal waaw bëgg naa lu leen neex trop gis ngeen écran bi écran bi dem leen ko def voilà donc affaire bi ñun jaaxal na brigade Kër Mbaye Fall dañ ko taal en vrai dañ ko taal après vous joxe les images yoo xam ne jot naa kaa jël ñu dem ma wan leen couloir bi voilà seen euh, site internet la lumière point net voilà juste et vrai ngeen koy jox voilà gis ngeen porte brigade bi dañ ko taaloon sànq

porte brigade bi dañ ko taaloon sànq porte brigade bi dañ ko taal maximum de partage porte brigade bi dañ ko taaloon sànq gis ngeen kenn xamatul lu muy rax Auchan yi on attaque Elton yi on attaque mais léegi